Bonjour, yi asalaamaaleykum ma ngi leen di de di leen ziar bu baax a donc tey dañoo xaw euh, fajaru parce que je pense que situation est moo parce que souvent quand il y a une actualité boo ramener ne euh, wala mu am euh, rendez-vous moins important donc on essaie de de faire une une vidéo ou bien en live nous jëm ko partager le plus tôt possible parce que day am solo trop trop trop ci lu ñu ci lu donc gars yi bu ñu fàtte sunu sunu mayo yi li mooy li mooy mayo mayo de la libération li mooy mayo bi nga xam nous ñun nous lañu fas yéene sol pour libérer Sénégal donc quand ils bañ di fàtte et souvent aussi nous euh, wax ne j'ai reçu beaucoup de messages du Sénégal ba qui demande euh, ñoom fan la ñu mën à merci euh, si maillot, mayo yi parce que man mayo mayo laa koy donc ça c'est un cadeau du député Aliou Sall donc Aliou maa ngi remerciez euh, remercier bu baax a baax le le cadeau parce que c'est un honneur man tey ma sol euh, loo xam le maillot de la libération parce que ça c'est euh, quelque chose que je vais garder toute ma vie loo xam souvenir la ci man loo xam ne moom ëllëg moom lay teg seede samay kanamu njaboot ne bu ñu xeex Sénégal de man de ah bokkoon naa ci ñi nga xam ne daan nañ ci parce que c'est un honneur tey que je porte ce sweatshirt C'est très très beau sweatshirt et nous wax euh, ñi nekk diaspora euh, il faudra vraiment aller commander euh, les les les les polos les sweatshirts tous les li nga xam les lépp pour nous jàpp ci campagne donc on va démarrer ci ci pour voir lan importante importance jour journée parce qu'on a vu les 16 candidats yi nga parmi les 19 conseil constitutionnel retenir pour ñu dem ci élection présidentielle ils ont fait un communiqué pour xam partager partagé nañ ko ak pour wax na ils ne participeront ils vont pas participer au dialogue bien nga xam le moom Macky Sall la euh, dialogue bi nag ñëpp de nañu defe naa ñëpp xam nañu lan va lan parce que Macky Sall cherche à gagner du temps parce que depuis que la décision du conseil constitutionnel est sortie bien nga xam ne dafay dàq moom euh, décret bu mu la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Donc on a vu depuis ce temps-là, bon, on va bientôt être à deux semaines bi conseil constitutionnel retoqué la loi le décret euh, bi Maxal Sall bi annulé les élections euh, Benen bi aussi la loi bi assemblée nationale voté n'ako pour pour le mandat euh, le président Maxal Sall ñaar yooyu ñu gis conseil constitutionnel mu dàq ko foofu nag la def attention ñu taxaw du conseil constitutionnel bobu ñuy parce qu'il ne faudra jamais faire confiance à ce conseil constitutionnel parce que gis nga fàtte bu fi fàtte c'est le même conseil constitutionnel bu ñu pendant les législatives Momo moo liste listu Yewwi Askan bi c'est le même conseil constitutionnel c'était les sept sages les mêmes juges ñoo fa toogoon bu conseil constitutionnel lu mu njëkkoon def jamono la liste bi nga xam la liste de Dakar bi DGE Nous dañu dem conseil constitutionnel conseil constitutionnel ne nañu delluwaat baat ci biir liste bi ñëpp tub ne donc conseil constitutionnel dañ ñi ko doon di justice C'est le même conseil constitutionnel moo jox dëgg opposition ñun ñëpp ñuy tàccu qu'est-ce que le conseil constitutionnel a fait Mon dossier Sonko moo ko intéressé donc le but c'était tout simplement de nous donner preuve que ñoom dañu nekk di dox loo xam ne mooy le conseil constitutionnel ñu delloo Barthélémy Diaz si liste Dakar mais sur la liste nationale conseil constitutionnel bi fi nekk tey bii ni ci bëgg a tàccu ñoo listu Askan Wi et pour moi Macky Sall cherche à gagner du temps et en faisant quoi En étant en connivence avec le même conseil constitutionnel. Moi, ta candidat yi woote gi ñu woote tey dafa important nit ñi xam les candidats les 16 candidats ont fait cet appel le conseil constitutionnel avec Macky Sall ben jeu la ñu nekk ak sénégalais dit di jéem dox sénégalais parce que admettons ce qui s'est passé avec le PDS avec les deux juges yi nga xam ne corruption Moi, le juge <laughs> euh, Koulibaly et l'autre juge Ndiaye soit nous avons porte nañu plainte les députés de du PDS mais ils y fait ne honneur dañu laal honneur nga honneur tu vois que le président de la République il y nga un gardien de la constitution il la ci un honneur de ñu bafoué mais pourquoi il ne démissionne pas pourquoi les deux juges du conseil constitutionnel ne démissionnent pas de leur poste parce qu'ils ont fait fekkee honneur de nous toucher. la logique voudrait il nous touché son honneur Qui nga xam la le président de la République nga gis ne moom moo ànd APR ak le PDS ñu ànd dem voter loi Bob mais su fekkee nañoo bafoué sa honneur mais tu démissionnes mais pourquoi il ne démissionne pas parce que le conseil constitutionnel est en connivence avec Macky Sall pour faire gagner du temps à Macky Sall loolay wax ci motax buñ fi tok yakar quoi que ce soit du conseil constitutionnel parce que quand les les seize candidats ont saisi le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel mënoon na Macky Sall ñun dé sa loi bi nga xamné sa décret bi nañ ko la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale maintenant organise des élections dans les deux semaines qui suivent ou dans le dans la semaine qui suit ou bien peut-être donc on me diront donc parce que j'attends euh, à ce qu'on me dise non mais Macky Sall moo war la date des élections moom moo signer le décret mais Macky Sall nee que conseil constitutionnel tam mën joxe date on la ñu ko Macky Sall waxee parce que Macky Sall nous dit su fekkee dañu def dialogue bi déggoowuñu ci kàddu mom dina jëlaat mbir jox ko conseil constitutionnel donc ça veut dire que le conseil constitutionnel peut bel et bien donner une date parce que foog ñuy fàtt fépp foog ñuy fàtt fépp dañu yor ay nopp yor xel parce que si je vous dis que le conseil constitutionnel aurait bel et bien pu donner une date moi mën na ko koo xam ne nag danga si am laam-laam xel ñaar nga ne non conseil constitutionnel mënul joxe date mais Maxal Sall nee nañu conseil constitutionnel mën na joxe date nga ne ma naka la ko naka la ko Macky Sall waxee ma ne ko parce que Macky Sall nee na suñu demee dialogue suñu déggoowul day jël dossier bi mu jox ko conseil constitutionnel mu jàpp date donc le conseil constitutionnel mënoon na joxe date le conseil constitutionnel cherche tout simplement à faire gagner du temps à Maxal. Sall loolu moy wax ji qui l'appelle en dialogue En dialogue où il y des candidats recalés dañ ci mais un candidat recalé forcément il va te demander que nous reprenions le processus électoral mu on su amul consensus bu va dañu nous mbir ci conseil constitutionnel mais qu'est-ce qui va se passer si jamono mon da koy yóbbu conseil constitutionnel conseil constitutionnel jëlaat ko delloowaat ko ko ni ko non président ya war di décret ñu sanante ben bal bo xamné tout simplement pour ñu baña a dans les dans les dans les clous le 2 avril nous sommes dans l'impossibilité totale d'organiser des élections présidentielles Macky Sall ci loolu la nekk donc il n'y a que le peuple sénégalais qui peut réclamer une date des élections et continuer à mettre la pression sur Macky Sall boobaa fait day que les candidats les six candidats yi nga fait une vidéo et on fait appel aux Sénégalais on demande aux six candidats peut-être Bassirou Diomaye Faye malheureusement mënu mais on demande tout simplement aux six candidats aujourd'hui d'être au terrain Harial parce que ce qu'est-ce qu'est-ce ce a tax ba sénégalais ñoo wuyu si leen ci li nga xam ne sont la sénégalais parce que ça serait trop facile de faire un appel de faire une vidéo appeler tous les sénégalais ñu ñëw tey terrain et qu'on ne voit aucun aucun euh, candidat aux élections Il mon que mu lève aussi si bopp nit ñi foog mu beaucoup ci nit ñi donc en résumé ce que je voulais dire vraiment cette vidéo bi que tout va se jouer aujourd'hui et demain Maxal Sall le la les candidats nous pas parlé le lundi le mardi comme il a si bien dit ñu un dañu qui n'a qui ci processus ci jàpp date Macky Sall teg le su amul consensus ñu le conseil constitutionnel Lorsque ça veut dire que le conseil constitutionnel aurait pu donner une date non c'est logique beneen bi xam d'avance que les candidats soi-disant candidats recalés mais nous toogee avec les candidats qui ont été déjà déclarés par le conseil constitutionnel mais forcément il n'y aura pas de consensus c'est logique mu jël loolu deux jours parce que depuis le conseil constitutionnel retoqué sa loi annulé décret bi mais s'est passé combien de jours ñu jëm lundi mardi muy deux jours encore ñu ne déggoowuñu mu jëlaat ne jébbal na conseil constitutionnel conseil constitutionnel vous a jëlaat benn këyit bindaat ne président ñun de yow yaa am sañ-sañu jël décret ñu avons ko que nous ñu koy sànnante benn ping-pong nous sommes le combien aujourd'hui élection du fi mën tenir le 2 avril élection du mën am le 2 avril parce que le conseil constitutionnel quand je vois les gens du top nan, du nga conseil constitutionnel dafa wañ loxo Macky Sall mais ce sont ces sept juges Macky Sall tànn leen depuis plusieurs années di leen honte, di en honte, di leen honte, di en honte, ba ñu agsi fii nga foog conseil constitutionnel bob les sénégalais doivent lui faire confiance bu kenn jox ben confiance au conseil constitutionnel que les sénégalais réclament que ñu jël date Macky Sall na jël aux élections ne tel jour nous ñu dem aux élections présidentielles Sur les campagnes 10 jours sur les campagnes 5 jours l'essentiel qu'on aille aux élections bu fi kenn tok di ñu gëmlo né conseil constitutionnel bi ak Macky Sall bi dañoo jiwaatloo jiwaatloo wuñu ñoo kif kif ben la. et ce qui va se passer na leer ci bopp yi de Macky day woté lundi woté su na tay les sénégalais dañoo top banque s'en loxo defuñu dara. que les 16 candidats dañoo tok sen cœur parce que su échecé moy 16 candidats yi ñoo toog seen kër loolu tam foog mu leer aujourd'hui sauf Bassirou parce qu'il est en prison Bassirou Diomaye Faye tay su fekkee ne mon, il est dans l'impossibilité mu fait que li nga xam ne xew bi que les quinze autres candidats que les sénégalais réclament tey ñu génn ñëw taxaw parce que suñu gagnons rek affaire bi am Nous suñu moi, mooy am lu louche seen bir donc quinze candidats yi dañoo jiitu tey tey xaar yàlla loolu mooy wax ji s'ils ne sortent pas ça veut dire que quinze candidats yooyu am nañu si ñoo xam ne ñi ngi si Macky Sall ba parce que hypothèse bi loolu rek la mën a nekk ah. ñoom ñu toog affaire bi échoué lundi mardi Macky def son fameux son son son son solo dialogue mu ne amul consensus mu jël affaire bi jox ko conseil constitutionnel mu agsi conseil constitutionnel conseil constitutionnel jël ko delloo ko Macky Sall ñu jékki-jékki tok rek ñu nous sommes le 20 mars nous sommes dans l'impossibilité de faire des élections présidentielles foofu lañu muju scénario bobu lañu bëgg a bo tax ne faisons ni confiance au conseil constitutionnel ni confiance à Macky Sall faisons confiance qu'en nous-mêmes bu fi kenn wolu kenn même ces gens-là qui sont dans l'opposition des candidats qui viennent de Benno Bokk mais maintenant nous 16 candidats nous sommes 16 nous sommes à la fin Nous génn ci mbir nous sommes su su Nous loolu naka la opinion opinion bi nous nous, sax nous 16 de nous sax parce que moi je fais ni confiance à Ali Ndiaye ni confiance à Mam ni confiance à d'autres candidats dans dans l'opposition Nous, nous sommes nous tax ba am rek la day nous, sénégalais dialogue pour faire quoi quand il a voulu annuler le décret pour convoquer le corps électoral est-ce qu'il a fait un dialogue pour pourquoi pour pour alors que Il annulé date Il a annulé annulé date consensus consensus le conseil constitutionnel agité la libération d'Ousmane Sonko mais libération Ousmane Sonko bon l'autre tax Macky Sall di ko agité du coup agité du coup agité loolu mooy thermomètre bi moo tàng day baisse juste le thermomètre parce que xam na tant que ñi ngi agité que Ousmane Sonko war na mën d'ailleurs génn day tax ba nit yi du ñu comme que Ousmane Sonko de léegi mu génn ñun dañuy toog suñu kër loolu da si jublu Macky Sall bu muy wax affaire Karim Wade et Khalifa Sall pour ñu bokk élection loolu il avait dit en 2019 kañ la Khalifa Sall ak Karim Wade ñu indiwaat ci géopolitique bi en 2024 cinq longues années se sont écoulées

patriotes, nous dégg parce que am na koy commencé wax naan nañ leen dialogue nañ leen naxante rek parce que Ousmane Sonko ak ñeenti prisonniers politique yi pour ñu mener a génn ay nax la Macky Sall li tollul sax xalaatul fenn rek lay moo mu libérer Ousmane Sonko moi, mu am une pression populaire si tant qu'il y aura pas de pression populaire il ne lâchera jamais Ousmane Sonko Faut que patriote yëpp comprendre que non, il ne lâchera jamais Ousmane Sonko ben benn dolli palaan booy dool askan bi la askan bi loolu da lañu seetal parce que il cherche à gagner du temps

ñom dañuy waxtaan seen biir ñom ñom seen biir ñom dañoo juboo di waxtaan seen biir sept sages Macky Sall mo leen tànn il ne tombe pas du ciel Do ay magistrats ñoo tànn les sept juges du conseil Conseil teg leen fa Macky Sall mo leen tànn ma xam Diallo Macky Sall moko ko tout le monde a vu les résultats Mamadou Seck Macky Sall moko fa teg tout le monde a vu les résultats mais comment vous voulez que les sept juges que Macky Sall a triés tànn leen teg leen fofu naka ngeen xalaté ne ñoo ak Macky Sall jubóowuñu mais c'est pas logique c'est pas du tout logique conseil conseil bi ko joxe mbir bi mënoon na né man japp na date tel jour la ñuy dem élection Macky Sall yow sa décret bi annulé naa ko loi assemblée nationale annulé naa ko tel jour la ñuy dem élection conseil conseil deful lolu dafa jël mbir mi né Macky Sall jow jappal date dans les plus meilleurs délais légui ci meilleur délai bobu ci la Macky Sall nek Sénégalais meilleur délai moy lan meilleur délai nga consulter les acteurs politiques d'accord sa mandat le délai jeex ok d'accord aussi conseil conseil wax na lolu yëpp mais constitutionnel jàppul date en même temps Macky Sall de ci meilleur délai boobu moom mu ne léegi day def ay consultation day def dialogue mu ne suñu nous suñu biir ñu jëlaat mbir mi ñu delloo ko conseil constitutionnel su ko ko delloo qu'est-ce qui va se passer le conseil constitutionnel va reprendre le même document de ko Max Sall ne ko non yow yaa war a date et puis nous pendant ce temps on perd du temps on perd des jours de campagne loolu rek la si donc gars yi mi ngi noonu moo taxoon ma ne xaar def live rapidement le matin gën a soññ suñu suñu suñu suñu mbokk yi que nañu oui, Yitaï à l'appel des 16 candidats parce que tout va se jouer aujourd'hui et demain. Parce que Macky Sall, il s'en fout royalement. Que les 16 candidats, ils, nous dem, que dem, souvent sous fait son dialogue. C'est, c'est, c'est, c'est, euh, ces trois candidats, deux anciens premiers ministres et un ancien président du Homo CSE, ils ñett ñëpp Benno Bokk Yaakaar la day toog dialogue Les léegi lii moo ci soppeekoo jël na jox conseil constitutionnel et si les 16 candidats ñoom tey génnuñu faire seen dialogue, ça ne servira à rien du tout ça ne servira à rien du tout Macky Sall l'un rek moo mus a tax Macky Sall au Sénégal parce que les populations lui ont opposé une résistance ça sera pas une conférence de presse Demain, naan man lundi man conseil constitutionnel faut la ñu de déposer un recours mais soo le déposer recours mais le conseil constitutionnel il prendra aussi son temps et là on est en train de perdre beaucoup de temps mais le temps il est précieux Taï la ñu voter taille, taille. on n'a pas pu voter aujourd'hui pourquoi on n'a pas pu voter aujourd'hui parce que Macky Sall a annulé les élections

Euh, euh, rôle beau si joué ku nekk da nga am rôle beau si joué ali Ngouille Ndiaye dafa am rôle bu muy joué mamboy Boye Diao dafa am rôle bu muy joué loolu fop nit ñi ñu koy bayyi xel mamboy Boye ali Aly Ngouille Ndiaye mënuñu rek réeroo ak Macky Sall mënul ne ça c'est impossible parce que mën ñu ñëw ba ci biir ñu gis ne les six candidats am nañu doole mais ñu jékki-jékki rocceeku suñu rocceeku naka la ko opinion bi di percevoir que ñoom seen biir jubawuñu et nous, mën dem ba bëssi si biir nous ak Nous Boye Diao ñu def ñu def ñu def ñu le sale coup donc buñu ñu compter ci kenn nañu compter ko suñun nañu compter ko suñun bu kenn compter aussi si parce que je l'ai dit au début de la vidéo les deux juges su fekkee ne honneur la ñu bafoué yow nga gis né le chef de l'exécutif le président de la République soutenir son premier ministre soutenir L'Assemblée assemblée nationale soutenir roule. la ñu lay sax traité de corrompu mais su fekkee yow sa honneur la yow ki ma nous seetaan ñu may toroxal mais man damay démissionné. mais pourquoi il ne démissionne pas ces deux juges là pourquoi ils ne démissionnent pas pourquoi ils sont ils sont toujours au conseil constitutionnel ce du ko donc gars yi mi ngi à tout le monde euh, un bon dimanche alaikum.